Président, monsieur le, monsieur le ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues. Monsieur le Président, je disais tout à l'heure à un de mes que pratiquement tout a été dit. Il faut juste peut-être répéter parce que la répétition, elle est pédagogique. Ce projet de loi est un projet de loi important qui vient à son heure. Et on a expliqué, parce que hier, c'est ici du haut de cette tribune que j'ai alerté en disant que certains de nos collègues sont en train de faire de la manipulation au moment où on était en train d'examiner la loi de finance rectificative ici à l'Assemblée nationale. Ils faisaient une conférence de presse pour manipuler encore une fois l'opinion nationale et internationale. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le Sénégal est alerté à cause d'une manipulation d'une certaine opposition. Il parlait de l'article 279.1. Un de mes collègues l'a dit tout à l'heure, c'est depuis 2007. Ensuite, en 2016, on l'a voté ici, au mois d'octobre. En publié ça au journal officiel. Aujourd'hui, on nous ramène le projet de loi et aucun mot n'a changé dans cette définition du terrorisme. Quelle mauvaise foi. Je pense que, Monsieur le ministre, c'est important. Vous l'avez fait ici en donnant la définition, en lisant l'article 279.1 pour que les Sénégalais puissent comprendre exactement c'est quoi l'objet de cette modification aujourd'hui wax nañ ko sànq titre 2 liñ ci yokk mooy de la piraterie maritime loolu la ñu yokk ci kanam piraterie maritime ensuite ñu intégrer li ñuy wax financement terrorisme mais loolu dafa nekk loo xam ne c'est des dispositions internationales yoo xam ne ñun assemblée nationale ñun ñoo ko voté ici mais bu ñu voté ay loi ratifié ko mais il faut que ñun ci suñu interne suñu corpus juridique ñu intégré ko ci waaye yaa xay lii de mooy wax ji ñoom nag comme ñoom mënuñu am élection yi ñu gañe amuñu nit amuñu vision kenn àndul ak ñoom ñu ne nañu fexe indi terreur indi terrorisme jaxase xelu nit ñi pour jël nguur gi loolu mënul nekk gis nga pour jël nguur dangay dox wax am xalaat def yëfu nit nite sénégalais yi nga xam ne ay nit lañ wóolu la dénk la ne la doxalal waaye wor sos wuruj njuuj njaaj ku yaakaar ne di nga ci mën a jël nguur perte nga Sénégal loolu amatu fi je pense que aujourd'hui li am ba des mooy tout cette manipulation a été découverte au grand jour looloo tax ñu ne nañ ko def en direct pour que sénégalais yi xam ne fii amul lu fiy nëbb lépp leer amul tey képp koo xam ne yor nga tele rajo site internet ñuy def ñu ne huis clos xam nga dañ daan wax ay huis clos dañuy nëbb nangam nangam fii lépp ne fang lépp leer li ñuy wax ñëpp dégg ko nit ñi xam ne la doon wax yëpp ay sos la dafa am ku ma wax ne pour pourquoi mun leen di anticiper sur la manipulation may leen mën nga anticiper ci lépp ba mu des sos xam nga nit bu fekkee ne suba da ngay mu ne la yow suba daf la nar a sosal ne da ngaa biiral loolu loo koy anticiper ngeen baal ma ci kàddu gi sos kenn mënu ci anticiper li nga mën a anticiper mooy loo xam ne dafa am quelque chose doo xam ne c'est réfléchi ñu togg ko ñu xam ne lii dinañ ci dem waaye koo xam ne daf laa nara a sosal suba yow bu fekkee nit ku baax nga munoo xalaat ne nan ngay anticiper parce que ku xamul sos xamoo wax lu dul dëgg xamoo wuruj munoo anticiper sur cette communication mais heureusement les les médias sont la presse elle est lépp leer na li ngeen doon bëgg a manipuler di def lépp heureusement au grand jour la leer nañ heureusement que lëndëmul dafa leer nañ nit ñi xam li ñuy def et je pense que cette loi elle vient à son heure ce sera voté monsieur le ministre on vous encourage on félicite ku bëgg nguur wax dëgg yàlla da ngay dem wuti vision xalaat xam-xam ak programme je vous remercie monsieur le président Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, mon ami Sambassi, le texte qui nous est soumis aujourd'hui n'a rien à voir avec un terrorisme réel existant au Sénégal. C'est les derniers soubresauts, soubresauts d'un d'un régime en perdition. Un régime qui sait pas ce qui lui arrive. un président qui n'est plus le maître du jeu. Et on sort cette vieille rengaine du terrorisme. Et là, Omar Foutu a été accusé de terroriste. Thierno Suleiman Bal a été accusé de terroriste. Maba Diakhou a été accusé de terroriste. Abdelkader Khan a été accusé de terrorisme. Mandela a été accusé de terrorisme. Amilcar Cabral a été accusé de terrorisme. Augustino Neto également a été accusé de terrorisme. toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, ont résisté pour sortir de la bastonnade et de la barbarie, on les a accusés de terroristes. Et ce qui s'est au mois de mars, c'est dans le prolongement de cette vieille tradition de résistance. le Président de l'Assemblée nationale, le 23 juin, c'était dans quelques jours, il y a quelques jours, Si c'était en ce moment, aujourd'hui, on vous aurait accusé de terroriste, alors que ce geste-là était un geste symbolique de résistance à la barbarie qui existait. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je m'étonne que le président Macky Sall n'ait pas tiré toutes les leçons qui ont contribué à la chute d'Ablaïwad. Et il est en train de commettre les mêmes erreurs entourés de gens qui kenn xamul leen kenn xamul ku leen xam suñu waxee nga xeeb leen suñu jëfee nga xeeb leen suñu bindee nga xeeb leen dans un Sénégal normal et normé et calibré ils peuvent même pas être chef de village mais ça ils viennent ici ils patronnent au niveau de l'Assemblée nationale et que ce texte-là Et ce texte d'aujourd'hui Et ce texte qui nous est présenté, je viens de remettre au ministre de la Justice, comme je l'ai donné à ses prédécesseurs, le texte d'une conférence que j'ai présentée en 2015 à l'université d'Artois, à quelques kilomètres de Lille. J'ai été invité à un débat international qui était intitulé Les nouvelles formes du terrorisme à l'épreuve du droit. Parce que la question fondamentale qui se posait, il n'était pas possible qu'ils gardent pendant 13 ans des soi-disant terroristes à Guantanamo à partir du Patriotic Act et au bout de 13 ans dire qu'ils n'ont rien fait. Et ça a le droit international, ça a le droit des États-Unis, comme le texte de, nous présenter euh, interroge le droit. J'ai présenté ce document-là sur le terrorisme et l'islam pour montrer que l'islam n'avait rien à voir avec ce genre de terrorisme. J'ai montré ce qu'était l'islam pur, l'islam de Saint Toubal, l'islam de Elaj Maliksi, l'islam du prophète Mohammed sallallahu Que ça n'avait rien à voir Et donc aujourd'hui, j'ai fait ma présentation. Pendant trois jours, je suis parti. C'était le 5 novembre, le 13 novembre, il y a eu les attaques à Paris. Le, 15, le, le, le 13 novembre, il y a eu les attaques à Paris. Le directeur, le recteur de l'université d'Artois m'a téléphoné, j'étais en Afrique du Sud. mu ne ma owee le texte de ta conférence ma ne ko da nga ko yóbbaale mu ne ma ko ndax li doon tere naan la question du terrorisme c'est pas une question de droit c'est pas une question de police c'est une question de terreau ñun ñëpp dañ ko weddi woon y avait toute la crème des renseignements généraux français y avait Trévis y avait l'école militaire ñooñu ñëpp tous ces magistrats m'ont entouré ils ne voulaient pas Merci. entendre je vous remercie je vous remercie chers collègues ça a sonné la prière